الى جهم الاداره بسم الله opposition ba day a eh, ñàkk nañu dee du dara le quotidien yéene kaay ne kalaame xam ne opposition bi daal eh. ne la dara eh, maa wax li ma ne nga xam ne nag laal ko constitution bi lee bi nga xam ne ko doonu koo football daal di voté mbir mi ne kalaame bi nga xam ne nag maanaam yóbbu nañ ko ci conseil constitutionnel day waaw opposition bi daal jàpp leen ne dañ leen ne débouté de ñàkk nañu de ci loi parrainage bi maa la ci candidat kon ci élection présidentielle ya vox populi ak enquête yéen kaay ne juróom-ñaari atkat yi nga xam ne ñoo nekk ca conseil constitutionnel daal ni ko ni lé Gakou ne maa la ko wax waaye nag léegi leer na ne kon ba ca boppam kon maanaam ñooy joxoñ justice grand parti yamu ca ndaxte nee waaye ñun opposition opposition bi day danañu booloo xool nag nan lañ mën a kon lëkkaloo di xaajandoo di dóorandoo sur le terrain maa la ko wax yéene kaa gi ne ñoom waa grand parti day waaw suba nekkoon ci samedi ji danañu amal nag ab meeting bu rëy ca diwaanu Mbuur la pré campagne ba door na ak Malick Gakou waaw am sat so bi day waaw nee na gis nga conseil constitutionnel mi ah def na lu defuwul def na lu defuwul de te jàppale ne conseil constitutionnel day daa waaf de daa daw professeur yamu ca parce que am sat so bi day waaw daal di nay naqaru na taxawaayu juróom-ñaari atkat yi nga xam ne kon ñoom ñoo nekk ca conseil constitutionnel googee sept sages yi maa la ko wax parce que ñooñee daal saa bu opposition bi kon yóbbee ab kalaame ca ñoom ñu ne incompétent mënuñ ca dara opposition bi rek lañ naan mënuñ ca dara tribune yéene kaay ne conseil constitutionnel day waaw waaf na de gars sëgg nañ de ci kalaame bi nga xam ne nag opposition bi day ñoo opposition bi day waaw dañoo fas yéene yóbbu na xeex bi kon ca bitim réew maître Abdoulaye Tine candidat la ci élection ne waaw bind ko leetar nag Nations Unies way mbootaayu xeet waaw waaye tamit ñii dara libération yéene kaay ne en tout cas Karim Wade gàngooram day eh. boo sàgg ne danañ lay teg loxo maa rëdd Italie maa rëdd Italie encore maa la ko wax ndaxte waa ki day day dogal ba nga xam ni kon wàcce woon nañ ko ca ñoom eh. auto procureur ba ca boppam ma ngay exécuté la ilaha ma ne la huissier bi ci boppam kay bind na banque yi laa la wax ci ndooteelu semaine bi ngir jël la nekk seeni compte yëpp daal di vidé kon compte jum wala maa jum ma ne loolu am te buur maa la ko wax ngir jote ñoom ñooñee lu tege daanaka kon junni ci ay milliards mille milliards la ma ne la nguuru Sénégal gi rek laa lay wax nii xoolal jaglelee nañ ko fukk ci ay milliards laa la wax contrainte par corps ba dikkagul ma ne la Karim Wade téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ci ay milliards lañ ko amande la ilaha illallah bi boo bursi day téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ci ay milliards Mamadou Pouy juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ci ay milliards 69 milliards Alioune Samba Diassé 69 milliards Karim Abdou Khalil Evelyne Riou Delattre Vieux Aïdara Mballo Thiam waaw ma ne la ko ci nekk téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ci ay milliards ilaha illallah la ilaha illallah réew mi ko ti yéene présidentielle 2019 yooyee waaw Serigne Modou Kara day boo sàgganee dana bàyyi Macky Sall de maar di taali waaw waaw Serigne Modou Kara Mbacké ne ah Macky Sall kat ñun dañ koo defaraloon ay proposition ci lu jëm nag ci wàllum koom-koom di économie ak lu jëm nag ci wàllum réew mi ci boppam suuf seeg soosé wàllum ba ci sax wàllum inondation ca bërëb bu tedd ba di Touba Serigne Modou Kara ne léegi nag gi ne Modou Diagne Fada nag dana jàppale kon Macky Sall waa wala die Modou Diagne Fada day suba ci samedi ji waaw la fa seenee wax ci jamono joo xam ne nag maanaam politiciens yaa ngay def seen calcul day askan waa ngi bëgg dee ubbil l'observateur l'impôt di ay taxes yi nga xam ne kon ñu koy teg na ci produit yi jógee ci bitim réew waaw njëgu dund gi boo sàgganee danañu ko yokk de maar day taali borom kër yi kay ñu ko yokk ak boisson box sobili waa inaa ko day ah, a bu fi kenn wax dara commerçant wala waa ina quoi nguur gi ci boppam la waroon a def la deful yéen kaa ngi ne waaye chef de service régional du commerce waaw dalal na xel yi dee parce que Oumar Diallo waaw nee na suukar saa ngi fi manqué wul téyewuñu ko kon njortees nañ ne yokk njëg yi moom du fi am waaye le quotidien yéen kaay nee na waaye ina quoi day jàppoo ña ngay sàkku na gis nga suukar si dañu koo war a audité loolu yi ab contrat boo xam ne ñu ngi ko signé ca 1972 ba léegi ni le diggante nguuru Sénégal gi lé ak compagnie sucrière sénégalaise waaye kenn bi bi kenn waxul waa CSSO eh. ñaata la ñuy defar ci suukar laa la wax seen production bi ñaata la Ousmane Sy Ndiaye ne looloo war a leer suukar si looloo war a leer libération yi ne kaay ne lii leer ba leer mooy banlieue bi day ak njaay jël jóob ah wallaay tey ñu ndox maar day taali box sobi li ne dëgg ndakaaru njaay jël jóob day danañu ko xañ ndox lu tolloog juróomi fanu yàlla la ilaha ah, ma ne la ko piir yi kay suba lay tàmbali samedi ba fukki fan ak juróom benn laa la wax ni la ndakaaroo banlieue ba Louga Thiès Rufisque ak ko nee nañ daal dafa am ay liggéey yoo xam ni moom la ñuy def ca kër Momar Sarr moo tax robinet yi bëri waa SD ak waa SONES ah, ci askan wi daal nañu muñ ci coono nañu muñ <laughs> <laughs> alaaji bu dee ñenn ñi dinañ jaxle dee ñi gën a bari duñ jaxle ndaxte tàmmal nañ ñu ay robine yi tëj ba léegi ko sanguwul sax du la def dara miin nañ bàmmeel te deewaguñ ndax tàmmul leen dem boo paree ma ne la alaaji tëjal su ngeen bëggee teewluwaat li si yëglikaay yi fenn rek ngeen koy kaar mu di actunet point net actunet point net moo di site